at bu jot dañ koy def moo tax tey ñu ñëw nii dinañ jàppale les zones 8A ak 8D ku si nekk benn enveloppe de 250 000 mais également 30 ASC yi nekk ci zone yi ku si nekk ñu jox la jeu de moyens complet ak benn ballon ak benn enveloppe financière de 100 000 francs loolu nag mooy rek jàppale leen si activité de nawetaan yi ngay def mais si loolu rek moom laay jaaree. di leen ñaax di lancer un appel ne euh, activité nawetaan si apolitique parce que ñëpp xam na fan yi gis nañ ni ñu ngi transféré euh, sunu adversité politique si euh, biir stade yi te loolu je pense que ni yéen am ngeen su rôle bu ngeen joué parce que aussi parce que parce que football de fair play la donc ñu éviter à la violence mais également ñu éviter di dugal mbiru politique